kon mbokk yi ba tey ñu ngi ànd ak yéen fii ci Daaru Minam ci kër sëriñ Bassirou ngeen gis teewaayu njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ñi toog di njabootug Cheikh moodu Aminta Fall ñu war a jox kaddu gi nag sëriñ euh, Moustapha Fall Mbar. di jëw jëwriñi sëriñ Fallou Fall moom Serigne Modou Aminta mu fas yéene yëkkati ay kaddu jëmale ko ci liggéey bu tedd bi kon sëriñ bi ginnaaw bi nuyoo ziare jégalu bu baax a baax ah, Abdoulaye Faye ah, almuridiya <laughs> kon ginnaaw bi ñu nuyoo ziare rek jégalu bu baax a baax ci xat-xat yi na ni ndigal li gannaaw bi mu tàbbee rek la ci Baye Fall yi sowu ba tey ji yéen ci bis bi yan kàddooy barkeelu nga ciy jëmale ñeel mbokki taalibe yi ñuy seetaan ci réew mi ak bitim réew. asalaamaaleykum Abdoulaye Fall Abdoulaye Faye <laughs> ah, ah télé bi almouridiya xam nga almouridu bu jël laay toppee mooy aji nam ci borom almouridu nag almarida nag nga xam ne def ko marché ko mooy aji féeterlu ji aji bañ mooy mooy marid aji nongo mooy murid ndax dina aji nam ji naan murid lay waaye murid day am fu mu nam waaye murid kese sax moom kenn ko ne mu nga ndax am na loo nam buuse yi reyu ndawal di jaay am na loo nam sàmm yor seen jët yu sàmm nappkat yi jën labe yor seen kël ku am nga loo nam waaye waaye nam nga nag lana war di àgg duna war di murid lay waaw na nuyoo nag ci turu suñu falidu kee toog suñu fali falidu jun

<laughs> bi ñu fal ñëw booba jullee wuñu te bi daa daa suuf na joxe baat nii dafa bëggoon gannaaw ñëw na nan tàmbali si quartier ba ñëpp xam ne ñëw na noonu ndaxatuñu ndigal fekk na yebaloon na fi ay rakam ak ñeneen ñi xëy li ma doon ci moom la doon dund ñu ko jëbal suñu bopp démb nu yendu fi di xool dal bi ak di xool dal yi ban tëral nii juróom-ñetti waxtu lañu tàmbali ñu njëkk a tàmbali mooy waa barab sàngam suñu tàmbalee doox sàngam nu bàyyi ñeneen fab loolu bàyyee rakkee mur yi benn baat bu ñu tëraloon sëñ Fall yu di bañ nag yeebal ci tool yi mu xëyal la lam def ci tool mu ñëw nga di ko daa bëggoon mu rakka mi baax yi ak njaboot gi leen tëraloon ni wax waxtaan am nay te ban koy tëral fa fa ban koy tëral fekki day bàyyi ñëw tiri ko soo yebalee mu di la waxal di la defal day bay ba mu ñëw ba waxal la la ko doon defloo ba ba la ko mel na ni wala la ko defloo ndax mel na ni waaye yebal nit nag di ko defloo ba nappi la la doon mu doon ko nga xam ne da nga ko njëkk feeñ ci àdduna rek dikk nag xamoo fu mu tàmbalee xamoo fu mu yemoon nga xam ne nangu ko doon defloo ci ay loxoom loolu la si wàllu doon bañ moo tax bi su karee ba mu naaj dañuy tekk taxaw tudd kër yàlla nii bàyyi leen nag yaa ñëpp yéeg leen esi ngeen ba sëñ xam na ni ëttan waxtu waxoon na bu jotee nag mu juróom-ñett waxtu bi juróom-ñett waxtu yu tegalul benn minute Abdoulaye Faye ci bi benn bu doon yàlla muy lay lay la xam nga da nga ñu sikar fii day ñaari benn sikar bee mooy ñi ñi di topp gaaw di laa ilaha képp yem ci laa ilaha képp nag mooy yàlla amul xam nga loolu waaye boo laa ilaha benn bu amul. daa naan illallah bul yàlla loolu loolu ak weddi waaye laa ilaa dëgg moom ak weddi la naan laa ilaha illallah ma li ma li ma li ma jur wax rek mooy kii fekk di si valil ba mu soo am wax baat ndigal bi bàyyi ko ci suñu tuwaat bi kër Cheikh Fall xool mbooloo mi àndal li niroo moom la ñu woddoo code code mi muy ndomi nuyi noonu niroo dañuy wane ni ñu njëw si ma dund daal dafa am ko xam ne dafa defoon dëkk bi gaaf ñoo xam ne man leen tas ngeen seen yaakaar bopp waaye kenn mën a si mën a ndax ndax damaa waxoon ni li sëñ Tuubaa te dëkk bi du ngeen gis mukk ku ko def ba noppi dëkk si mën a bind ndek sa borom moom daa bëgg sama wax ja deñ faro akar si mën dem def gu rek man leen nag yéen tas ngeen seen yaakaar si mën a bind waaye mën leen tas yaakaar si mën ndax man maa ne woon du ngeen gis dara lu def ci biir Tuubaa loxo yi ka ko def talib si mën kon su ngeen bera def waaye ndok ba ngeen ko defee ci lu ngeen nag bu fekkonte ni jëriñu si Madina Fall mu di la lool kon si Ablaye Faye yaa ngi murid yi kontaan na mu métti waaye sëñ Fallu di léew ko nag ña ko def itam tuub nan loolu tàmbale ko tuub ko ci jëriñu si Arafa ji tuubal ko jëriñu si Tuubaa ja nit duñ ko defet nag waaye ci gàttal na kon turu yàlla yooyu ñoo noonu ci fas na ne na ko suñ bëggee nu def ko ba defee ko nu koy njortam di ñaan sunu borom nag ku ne xam ne jëriñu si Tuubaa ji mu mur yi ji na murid yi waaye yàlla na ko jiw nu murid yi Sëriñ Muntaxa Mbakke jig na murid yi yàlla na ko murid jig jëriñ Seex Faal ji jig na murid yi yàlla na ko murid jig Seex Mor Musaa al Muntaxa dakkantalu Musaa la benn tur rek la ku ñu tànn ki mu ngi ñaan suñu bam yàggal dund gi yàggal ñu seen dund ci wér tàmbali bi ñu tàmbali tam ba tax ngi ñu laaj Sëriñ ba xam lu mu ci xam Sëriñ Fallu xob bi daal lul noor ci baatum ndigal bi ba wax ne ko woon bu ci àggee bàyyi mu bàyyi ñu joxaat ko ndigal lu tax suñu jógee fii daan wàcc buñ jógee fii dañuy gën a dëral bari ndigal ndax junniy ndigal lañ ci suñu kanam yoo ne ko ndég loolu ci joxe ne joxe nag da ko jox juróom si alfaaje mu jox ko juróom nam ji mu jox ko moom mu jox na ko noonu murid yi kon nag yéen ñu tuddee seen bopp almurid seen waxukaay gi yàlla na bokk ci yaa xam ne duñu wax lu suñu borom gërëm ñi koy dégg ñoom yàlla dégg ci yéen lu suñu borom gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu